da ci ànd ak Serigne jàmm bay sa waar ba mu sës ca ñag ba ndam la waaye te di sàggan ba liiraam jiitu la ca ñag ba ba màtt fa nit gàcce la lay jural ndax fu màtt-màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet derub réewum Sénégal tàmbali naa yàqu ci wàllum politique ca biti réew l'observateur ne langu politique gi ci réew mi ak li fiy xeeñ moom la waa biti réew di waxtaane journal Futur Média bi yokku ca ne àdduna béppay bàyyi xel fi mu toll réewum Sénégal te dara waralu ko lu dul wayu politique yi ñu njort ne ku nekk yaa ngay xas te mën naa am nara laal ba laalaale investissement yi ku laal Ousmane Sonko di nga laal laalaake Les Échos yéen kaay ni député yi fare ci Yewwi Askan Wi dogu lañ def biram Souleye Diop ne nangu benn yoon Ousmane Sonko di leen a gore ba tax duñ ko mas a seetaan ci lii dox ci digganteem ak Adji Sarr ñu naan ay chambre criminelle mbirum Aminata Touré Birame Souleye Diop bu Yewwi Askan Wi ne yëgalu ko yaramam ndax moom mi mi jamono yi muy nekk ci nguur gi lu ne yekk na ko seen njiit di Ousmane Sonko Libération yéen kaay ne mbirum Ousmane Sonko ak Adji saar daaneel na beneen waay Moustapha Diédhiou lay wuyoo sûreté urbaine ñoo ko teg loxo yéenekaay bi ne vidéo la def ne APR ay naafeq ak ñuy mbubboo jullit ñoo fa nekk tax mu ne faw ñu nekk ay jullit dëgg jug taxaw xeex li ñu nar a teg ci kaw Ousmane Sonko ci noonu gars yi jàppee ko ca Liberté 6 di ko toppe mbirum terrorisme Moustapha Diédhiou yokkal leen ca ne li ñuy teg Ousmane Sonko ku ca xeex ba ñu faat la jàppal ne dangaa jihaat aljana nga jëm su su aane moom Ousmane Sonko boo moytul chambre spéciale bu tribunal grande instance bu Ndakaaru lan ko jëmee nar ko faa àtte Birame Souleye Diop ak waa Yewwi Askan Wi ci journal L'Info mel tàmbali ko naan buñ leen ca dee bàyyi ndax ne mbirum Sweet Beauté ay caaxaan lañ ko jàppee ak bëgg a gàntal candidature son Sonko ba noppeet yootal troisième mandat te loolu xel xalaatu ko àlla àndul ci troisième mandat noonee la ko journal lay fa bindee yéene kaay bi ne jang nee na allié président Macky Sall la woon waaye ñetteelu mandat moom àndu ci Sud du Quotidien ne candidature président Macky Sall ci élection présidentielle yu atum 2024 safaru bëri la ca gis ak xel ñaar gu am ci njiitu réew mi ba noppeet di ko tiital liy dal mbër yu màggat yi muy bëri doole bëri bayre yow dem ba toll foo xam ne sët yaa koy wane di la naan saa maam fii la daan dóore gaa yi ak fii la daan daane gaa yi waaye nag maam bu jugee bëgg waneel boppam nam daan dóore gaa yi ak fam daan dóore gaa yi loolee ndama nga ca waaye te leneen a nga ca vox populi ne moo tax ba xalu général bu Medina Baye artu na ba noppeet woote jàmm Cheikh Maye Niass ci biir yéene kaay bi ne fit na baaxulu nan woote jàmm saxal fi jàmm te doxal fi jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën te la ci woo Cheikh Yérim na bu baax président Macky Sall enquête yéene kaay Cheikh Yérim Seck ne Amadou Ba moom la waa nguur gi di gën a may bët amul dara lu muy def lu ump président Macky Sall maanaam daa nekk ak moom te wóoluwu ko firnde moo di ba fii moom Amadou Ba mooy premier ministre waaye amul sax barabu liggéeyukaay liggéey bu rëy mooy xaar réewum senegal ngir mu bañatee jéggaani li muy dundee las yéene kaay ne souveraineté alimentaire somem ñetti fan lañ ci doon amal fii ci diwaanu Ndakaaru kilifa yu bari yu nekk ci déndu Afrique ñëwoon fekkee ko lépp ngir tegi pexe ba déndu Afrique bañatee jéggaani li ñuy dundee lii quotidien Sénégal kay jot na lu toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom juróomi milliards ci xaalisu CFA ci loxoy BAD source ane souveraineté alimentaire bi moo ko tax a jukk le quotidien moom xëy di wax ci leneen ne autoroute nord bi xàllu wi bàyyeekoo ti waawoon utali ngaay mexe juróom benn fukki milliards ci xaalisu CFA lan cay def mu nar lëkkale ñaar fukk ak juróom-ñetti kilomètre juróom-ñaar fukki dignitaires yu nekk ci réewum Sénégal le soleil national nee na décoré nañ leen ndax seen jëf ju rafet jëf ji gayndee équipe nationale bu Sénégal def démb ca CHAN bay xew ca Algérie bari na yéenekaay yu xëy di ko wax journal record ak stade yéenekaay ca lan tey Pape Thiaw yi qualifié nañu demi-finale Mauritanie leen dóor benn bal ci dara tax ñu dégg daali Ousmane Ba dafa bëggoon a dégg daali far mu mooy libération ak l'observateur ñoo xëy di ñu ko xibaar journal yi ne Ousmane Ba ab chinois la doon dawalal dafa kompolo ak ay xaritam lalal ndëgg sërëx patron ne leen da ngeen may dogaale mel ni ku may cambriolé jël xaalis bi yóbbu après ñu séddoo ko gaayet bàyyi ba Ousmane ànd ak patron ba yéeg pont bu mool diis ñu braqué ko jël fa lu toll ci juróom-benn fukk ak benn million ci xaalis CFA